Mang lay fay Marietou euh, nit ñi ñu nga xamee ci turu nga ci damay sawar asulobe. mu ngi jóge ci sama wujju tubab la waaw fofu la tour Astou bi jóge ba pour ma dégg kiya sax problème la asulobe asulobe non duma lawbe <laughs> Mm. waa li fi ne ak faramaareen bi boobu laa njëkk a joué mu ngi doon daw seen TV série boobu dañ Bijou moo ko bindoon Bijou Ngoné 2 moo bindoon série bi. Uh-huh. boobu waaju baax moo nekkoon sama far après bi ñu bi mu. biñu démé ci restaurant ba ba pare ba ñibisi mu daal ne way yeen ki a mi ngeen ma may mu né ma jank la ta amna ñetti ñetti doom <laughs> maaren la doon sey moma ma loolu ci série bi sama wujju tubab euh, la ki motax ma dugg ci Jami Mati ak ousain Kayta boobu maa ngi dem toog ak samay copine toog resto ñuy béggee après ñu woo ma nag dañ tàmm chaque minute rek dañ may woo def ma main libre sama wax daleen neex ñuy reetaan ñu woo ma nag ma daan ne wuy yii tey aw ma jot dama dem xàppi ji nii ñu ne ma noo dafa am kuñ lay paas maa ngi koy nuyuwaale ndeyaa wax <laughs> madame Ndiaye nii après ci la nday aw jël daan ne ma man la ma daan ne mu daan ne ma dama la bëgg a dugal ci benn série ndax yaa ngi koy seetaan sama wujju tubaab la ma ne ko waaw nii daal laa fa demee après saan ma dem ci bureau bi ci lañu waxtaan après ñu dem fee euh, Saly Mbour fi ñu koy tourné nii. Euh, noo defuma casting dafa am lu ma def rek xam nga rek dëgg neexul frisé fa sama yaram semi ondulé ko redd ko. <laughs> ni ma def daal di ko dugg rek nii dëgg neexul. Uh-huh. Euh, sa personnage dafa yëngal euh, dëkk bi ñëpp di wax asulaw bi bi lan nga dundee bës boobu man <laughs> garaaw na parce que booy dox ci mbedd sax xale yi dañ lay topp ndiiraan asulaw be mais gis nga nit star soo bëggee yàlla gën la yëkkati da wàccee sa bopp doo jànni nit ñi. doo leen toroxal te da ngay xam ni ngay defeek ñoom star daal du yëg succès waaw. est bës bi waa na mm, dama ko doon xaar nag. waa parce que dama gëm sama bopp te bës bi da yamagut fii de. Mm. waaw day jaar ci appayage bi. <laughs> Euh, xaw a méngoo ak bu <laughs> noonu <laughs> meluma noonu nag rôle la rek hmm. xëy na ñoom garaaw nañ garaaw bi nga xamante ne ñoom macha allah waa Pikine yi suñu gisee nit rek war nañ ko war nañ xam ne kii rôle bi buñ ko ko joxee da koy jouer noonu la demee meen meluma noonu yëngalagoo déedéet. yëngalagoo say mm. déedéet. kenn yi. <laughs> Euh, ñenn ci internet ñu ngi lay critiquer naan que da vulgaire parce que fecc meeg wax yeeg yooyu noonu. Mm-hmm. noo bëgg ñoom ñu comprendre ne rôle rek la. vulgaire ma dañ ma ko jox pour ma jouer ko te dama ko war a ba ki moom film bi kontaan ci man pour ñu comprendre ne rôle rek la vulgaire ma de non non <laughs> dama koy friser rek semi ondile ko noonu bàyyi ko rek mu gilise waa redd ko dëgg neexul fans yi euh, léegi parfois nga toog def ay wuy téléphone def ay vidéo je sais pas si c'est c'était programmé wala lu naturel la mais dañuy gis tout le temps say vidéo dañ koy reprendre. non lu naturel la ku ci mel ni sama raq ji ajaamu Serigne Saaliw dama koy fekk këram tout le temps fii Liberté 6 léegi nag suñ ma woowee rek day gaawantu jël téléphone am daa day xam ne man suñ may woo téléphone damay toj. mu japp ma rek di filmer di dugal ci tiktok bi talol lol nonu def buzz di tiktok bi wéru koor gi la won ba légui papa mbay don ma wo <laughs> deug neexul aja jël téléphoneam di filmer. est-ce kui am na kuy fëgg <laughs> waaw am na kuy fëgg nak wa am kuy fëgg. wa wa légui rek lu jot yomb dara yaa bu ci yalla jox rek. bu ma ci yàlla jox moom laay laal. <laughs> <laughs> bu ma ci yàlla jox rek. Ah. en tout cas waaw bu ma ci yàlla jox rek ma dem ci ba mu jeex ragaluma ci benn. bëgg nga bëgg naa. Hmm. waaw non bu ma ci yàlla jox. Hmm. waa kay ma dem ci ba mu jeex. <laughs> duma la ko wax à lay doon lan. No, kayak dengan link aku paham gitu. <laughs> no gede buat banyak ya dong ya. non duma la kawah. ndax say sutura la waaw kay mais daal ni ngay ni ngay ni ngay def ci ci ci théâtre ngay non wala ma def sax nu ko raw hmm. waaw di lëmbal ak yow góor bu la taqee lay wër complexe bi day jeex aw ah, da nga wara gëna sayaram, semu friser sa yaram semi undi ko jël si tawi ko bërëteel waaw kay. Euh, li ñëw Di diggante ak hmm hmm di nañ ko ko ko jege ga deug la lolu boo ma ci laajee Marietu dama lay sawara tont ndax Wally Seck man ak mom dañoo yag torop torop mok jabaram ta yàqu ci dara mu nek nit ku bax nit ku ma bëgg. nit ku ma mën a siggil tey bu ma àndeex samay copine soirée dafa may yëkkati ba ci kaw muy Waly Seck macha allah Maria Sine may sa bige maa ngi profité Waly di ko nuyu namu ma dara ndax moom su ma nammee xaalis damay dem ba almadi mu jox ma ko ba mu doy lekkul dara bàyyi ma faramaareen bi ñëpp nag dañ maa xamee ak moom àddina kay moo waral kiya faramaareen noonoo man bootuwuma ci ginnaaw Wally xam nga lu tax damaa yàgg ak moom man xaaruma ba Wally Seck am buzz ma nekk ak moom avant la lu yàgg waaw. maa ngi nuyu ñépp di tàggu sénégalais yi di leen wax ne nag rôle yooyu dañ ma ko jox rek ma war koo jouer ba mu baax. pour ki bind euh, euh, film bi contane na dafa yëkëti xaalisam bu bari di ma ko fay deug neexul di wax sama fan si vulgaire ma maa ngi jéggalu <laughs> dañu xaar ni série nak ak Kia faramaren. di profito di nuyu sama mag ju bax ji feuz da ngeen fekk mu genn motax joy ñu yaay ju dé mo uuf ay raxam mo dëkk fi ño bokk nday ak bay mu uuf ay raxam nammuñu daram nak mom di nuyu sama jabar mag joju nga xamne su xolon la nek sama nek duma defal dara muy yasin borom italy yaayu bebe jooja mang koy nuyu bu baakha baakha bax aja amu serigne saliw abdou mazor ñoñu ño nekkal ki ci tiktok bi lu ma mënti def suba ba ngon ñokoy duggal tiktok mang leen di nuyu sama raq yoyu deug neexul di leen nuyu walet profito di leen nuyu yow marietu amina la belle Tafa Sarr bàyyiwuma kenn kontaan naa tonton Aliou Ndiaye nag aw ma fayam bàyyi di seex dafa tëddee njaaxaanaay macha allah Pikini production mention spéciale géwal laa nag bu leen ma taxa làqi français français géwal <laughs> <laughs> ah? xanaa jël téléphone bi rek jox ko Tafa Sarr ne ko photo ma <laughs> position yi dafa métti kon ma may leen rek mbaa togg nga daxin bi yooyu dafa metti kon ma may leen rek mbaa nga daxin bi marietu mbaa togg nga am nga gànnu lawbe na limoon jabari mbaa togg nga daxin amina mbaa togg nga daxin am nga gànnu lawbe na limoon jabari e mbaa togg nga daxin tafa fo jege na dangeen naan teni buga fo jege na faj xoola teeni buugaa kii yaay tubaab marietu fa jege na day ngéwale teeni buugaa seebi ni xeetee nii jeeg teeni buugaa saraxeel banaana yaa ne yàcc marietu kontaan naa ah taxaw dafa metti sama caméraman bi Amina saraxeel 16 dama koo tàmm non dafa bok ci man dafa bok ci sama samay fem ta fans yi daf dañ ko bëgg waaw motax mo koy berek nak suma la ko defalee nga xam lépp dëgg la non dama leen ni beregal mënul ñàkk gop gop gop shirley it's the Shirley happy birthday wisi wasan wis wo tugi took